table mënoo la loo def ma appuyer loo def ma appuyer si. jeex na. loo wax ma appuyer la foo dem nag nag ma woo téléphone ma wax. jeex na léegi xam nga nu may def. Mm-hmm. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg sur ngeen lett wala ngeen firi soo kii mënu ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence. de presse te muy neex muy naqari. loo appui léegi nag mën na leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñ ñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne bëgguñ les léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bëgg yow nga wax moo tax ñuy lay téye kon su ma fëggee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement. dina am changement amul benn problème yow yow nekkal ci jàmm man dinaa fexe ñëw ne leen par force damay dem seeti ko man. ba tey mun ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem dem dem ñëwaat. sooy Amérique ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non ma oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. lenn de naa la ko wax. tey on naa la ko wax li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatou Tambe de ay ñaan Fatou Tambe xaw ma ak ñeneen ñeneen yi. ak waaw leen di yow. pourquoi yow ah mi nga xam ni yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ni wóor na leen ne li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax. ay yow kenn gënu la cee yee dëgg wala déet hm? nga taxaw di leen bàyyi noonu ah? Ah? loolu loolu loolu loolu da nga war a taxaw léegi maa ngi nii damay jóg sangu nii pare dem jumaa ja tey fii laay jullee almadi léegi su ko defee dinaa ah, oo paa bi su ma jullee ba pare xool li ñuy def dégg nga ok aj sa voilà ay preuve la rek yoo xam ne yëpp dama koy teg pour jéem koo de pour pour jéem koo def incha allah loolu laa loolu laa jëm di jéem a tray ni xeex moom xeex lay doon rek jaajëf